AGT News. docteur Alfouseyni Gaye ñëpp ràññee nañ ko ci dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr bile moom nag gis nañ sortie bi nga xam ne defoon na ko ak kii di Babacar ture ca Keweloo foofee docteur Alfouseyni Gaye ma ngi ci doon wax ca la nga xam ni moom mooy situation mi muy dund. dikkaat ci yu bëree bëri yoo xam ni moom moo ñeel wàllum sécurité am waaye ñëw ci li nga xam ni moom la dund ak Adji Sarr sénégalais yu bëree bëri am ci aperçu par rapport ak bés ba mu ko doon jël. moom di xool lan moo ko dal par rapport ak viol bi mu jiiñ Ousmane Sonko moom docteur Alfousseyni Gaye moomule mi ngi ci ay jafe-jafe moom docteur Alfousseyni Gaye mi ngi ci ay problème te ñi xam ni ñoo di waa collectif touche pas à docteur Alfousseyni Gaye daal nañ ci addu li doy waar ci mbir mi mooy docteur Alfousseyni Gaye képp yamatul ci menaces yi way juram bu jigéen sax ñu ngi koy woo téléphone di ko dal di menacé waa collectif ba ñu ne docteur Alfousseyni Gaye continue de subir des intimidations. Son seul tort a été de consulter une patiente du nom de Adji mais aujourd'hui, il est victime de persécutions, de violences verbales et même de menaces de mort. D'ailleurs, même sa propre mère reçoit des appels et des menaces du camp du pouvoir. du samay kàddu kàddu yi Mamadou Lamine Diante la moom mi nga xam ni bokk na ci ñuy xeexal docteur Alfousseyni Gaye ngir mu daal di am jàmm ak salaam ñu ne ki nga xam ne moo di docteur Alfousseyni gay deful lenn lu dul daal di consulter Adji Sarr consultation boobu moo ko jural jafe-jafe yi muy dund tey moo ko jural waajuram bu jigéen sax nekkatul en sécurité ndax ñi ngi koy woo di ko menacer di ko teg yenn intimidation yoo xam ne dafay woo ab doomam ngir mu ñëw jege ko waaye itam am tiit ak njàqare goo xam ni mi ngi nekk ci moom bis bu yàlla sàkk mu nekk nag mbir mu doy waar mbir mu yéeme loola ndax buñ demee ba docteur Alfouseyni Gaye mënatul am jàmm ci réew mi cela veut dire qu'il y a buñ demee ba képp koo xam ne yow da nga laale ci dossier Adji Sarr farewoo du côté du pouvoir dafay am ay jafe-jafe yoo xam ne da koy daal di dund réew mi nag nekkul foo xam ne dañ fee war a ñoŋal lu jëm ci wàllum insécurité sénégale yu ci bëree bëri ñu ngi ci insécurité tout simplement parce que am na ci ay dossiers yoo xam ne laale nañ ci wax nañ ci wala bokk am na loo xam ne ñoom jot nañ ko cee liggéey ci ban réew la ñu ne Sénégal gi réewum jàmm ak salaam la te lépp loo xam ne dafa laale ak liggéeyu benn doomu Sénégal di ko ci menacer Asamax nag dem bay menacer way juuram di menacer ay famille am gis nañu fi récemment li nga xam ni dal na ci kaw Mollah Morgan ca seen kër gële nga xam ni moo nekk ca Kaolack Sénégal réewum jàmm la réewum salaam la Sénégal réew la moo xam ni kenn waru koo taal kenn waru fee yëkkati yoo xam ne ëllëg dafay lor ay doomu aadama amul benn njëriñ boobu ñu mën a amal nañu jéem a fexe jàppalante suñu biir nañu jéem a fexe xool naka la ñuy def bay indi ay solution par rapport ak li nga xam ni mooy insécurité bi am ci réew mi jëm ci wàllum agression yi ak yeneen waaye waruñoo dem a dem a ba ñi nga xam ni ñoom ay liggéeykat lañ ci Sénégal fii nii nekk ay jàmbaar nekk ñu diñ nekk ñu responsable te dundu ay menaces ñu leen di woo di leen teg benn coono boo xam ni kenn xamul lu mu doon woo société civile bi di woo itam képp koo xam ne nag di ab syndicat bu nekk ci wàllum santé à ce nga ñëw jàppale docteur Alfousseyni Gaye ndax jaaxle na xamul fu muy teg ab tànkam xamul fu mu jëm te nag dès ce samedi ñoom dinañ daal di dajaloo ngir daal di xool naka la ñuy def ngir gën a mën a ñoŋal la protection du docteur Alfousseyni Gaye fas yéene nañ ci ànd ak waa Kolda fas na ci ànd ak waa société civile bi ak mbooleemi syndicat ñoom ñi ngi ci invité à ce que ñu ñëw rejoindre leen moo waral Mamadou Lamine Diante ak ñi ci àndal ñëpp ñuy wootee à que ñu jàmmal ki nga xam ni moo di docteur Alfousseyni Gaye li ñu koy def du dëgg du yoon li ñu koy def teguñu ko fenn li ñu koy def nekkut loo xam ni baax na pour suñu réew mii di Sénégal Sénégal benn bopp la kenn waru koo xar ñaar saa su ne dañ koy wax jàmm ak salaam kese la ñu fi wootee jàmm ak salaam dong lañ fi bëgg jàmm ak salaam nag mën na fee am ci kaw képp koo xam sénégalais yow ñu daal di lay protéger docteur Alfousseyni Gaye n'a rien fait d'autre que de produire un rapport médical sur Adji Sarr conformément ak liggéeyam ni mu ko ko sante nañ ko ko sante noonu la ko defee lu ci mënti am mooy la nga xam ne moom moom la gis yokk ci wàññiwu ci li nga xam ne nag bëggoon nañ ko ko defloo mooy di ko jox ay koppar ngir mu changé boobu lépp rapport ngir mu dugg ci ay mbir yoo xam ne du woon yoon moom docteur Alfousseyni Gaye bañ na ko te dara waralu ko lu dul li mu nekk un très bon sénégalais un citoyen modèle nekk itam koo xam ne modèle la par rapport ak wàllum corruption ndax bañ na ko ba koppar gañ ko doon jox sax xool sax defu ko ko def ne ko jëlaat ko noonu nga delloo ko ka nga xam ni moo la ko joxoon ngir nga indi ko ndax lii du ma ko laal kenn mënuma fexe ba sama loxo daal di ciy tegu. bu doon Sénégal gi ñëpp mel nañ ni docteur Alfousseyni Gaye kon tey kenn waxatu ko waaye nag ay docteur Alfousseyni Gaye yu bëree bëree bëri ñu ngi ci réew mi di dox ay docteur Alfousseyni gay yu bëri ñu ngi ci Sénégal gilee toog jàpp seen njàmbur te xam nañ li nga xam ne mooy xew ci nguurub Sénégal xam itam dëkk bi ni muy doxe waaye yu ci bëri li tax bëgguñ sax dugg ci langum politique gi yu mel mel nii moom moo ko waral léeg da nga ciy gis loo xam ne leer na ne lii warutoon demee nii dafa waroon nekk loo xam ne sénégalais yëpp ñoo koy jëriñoo nekk loo xam ne sénégalais bu ci nekk da ciy daal di gis sa bopp waaye na xam ne doxalee nañ ko ko na nga xam ne noonu lañ ko dundee nekk na luy découragé loo ñu bëree bëri ci lu jëm ci wàllum politique politique gu Sénégal nag war nañ koo sang politique gu Sénégal war nañ koo jéem a defaraat bu baax a baax ngir képp ku ci nekk rek ci ñun daal di ciy mën a gis sa bopp waaye nga mën cee dugal sa loxo itam ca na mu waree ngir ëllëg ñun ñëpp ñu ànd booloo daal di liggéey suñu am réew cultiver jàmm nañ cultiver salaam docteur Alfousseyni Gaye nañ ko bàyyi ci jàmm ak salaam muy mën di xëy dem defi liggéeyam ca na mu waree ci dellu siwaat ci ab këram itam ca na mu waree citoyen sénégalais la comme bépp citoyen Ousmane Sonko woo Adji Sarr kenn ëppalewu ko lenn ci réew mi moom lenn képp la jiital ci ay mbiram mooy def la nga xam ni moom lañ ko sant ci ab liggéeyam la mu def nag bu arrangé Ousmane Sonko keneen kum arrangé wul yow na nga toog jàpp sa njàmbur te xam ne nii la waroon demee bu dee itam la muy def moom daf cee jiital njub yow la cee topp da ko bàyyi ak ngëm-ngëmam ndax loolu suñu ab constitution moom moo ñu ko dal di may sénégalais bu ci nekk libre nga accepter lu la neex libre nga itam ngir ñàkk accepter loo xam ne yow sam xel àndu ci wala bëggoo ko wala bëggoo cee dugg loolu yëpp bu amee da ngay di comprendre nit ki xam ne lii démocratie moo ko laaj dama koy daal di nangu docteur Alfousseyni Gaye nag lañ ko bëggoon defloo da doon dem à l'encontre de ses principes maanaam ay ngëm-ngëmam li nga xam ne kenn mënu koo weccoo ak dara li nga xam ne kenn mënu koo jënd ndax amul fu ñu koy jaayee da ànd ak moom baa nga bañ koo am loolu kese moom moo fi nekk te docteur Alfousseyni Gaye am na ko ba jeexal ko tàkk ba tax na nañ ko bàyyi mu nekk ci liggéeyam jàpp ab njàmburam waaye li ñu ci gën a yitteel mooy yaay dafa fort yaay dafa nekk loo xam ne boo ko laalee laal nit ki fu sore sori yaay dafa nekk koo xam ni bés boo ko laalee rek daal di yëngal ab doomam te bés bu fekkente ni bëgg ngaa atteindre ab nit na mën nga koo jaaree ci moom ba tax na docteur Alfousseyni Gaye na ñuy intimider di ko jaaree ci ab waajuram bu jigéen nekkut loo xam ne lu rafet la nekkut loo xam ne lu jekk la war nañ koo bàyyi mu nekk ci jàmm war nañ koo bàyyi mu nekk ci salaam suñu yaay booy boobu noonu war naa dund li nga xam ne moo di aafiya ndax tey jii ab doomam nekk ku am fulla ak fayda ku am jom réussir si àddunaam ba daal di koy teggil yenn coono yu bëree bëri ba tey xelam dal ñu bëgg ko indi indil ay menaces de mort nar a dëkkee ab inquiétude par rapport ak doomam ji nga xam ne dafa war di dem di liggéey ji loole nekkut lu baax nekkul itam loo xam ne lu ñuy encouragé la nañ ci jug te autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi dans les normes puisque docteur Alfousseyni Gaye dafa nekk en danger dañ kaa war a utal li nga xam ni moo di garde du corps wala boog bu loolu yëpp mënul nekk sénégalais yëpp ànd booloo daal di réclamer à ce que ñu utal ki nga xam ni moo di docteur seeni Gaye ay garde du corps wala ñu ubbi koppar express lañ cey dajale ci ay koppar ñu fay ko ay garde du corps yoo xam ni mën nañ di topp kii di docteur Alfousseyni Gaye saa su nekk ngir sécurité am ak sécurité waajuram comme ni ko Ousmane Sonko amee comme ni ko ñeneen ak ñeneen daal di amee buñ ko defee moom docteur seeni Gaye ngor gi mu ci wane jom fulla ak fayda bi ak li muy jombale boppam loolu kese war naa mën a tax ñu daal di ko koy defal nekk en sécurité ba bés ba ñuy dem ci procès ou pas ak luy mënti xew ci dossier bi bu ko defee moom docteur Alfouseyni Gaye dina nekk ci jàmm nekk ci salaam xelam dal waaye itam li ñu gën a yitteel mooy yaay booy bu baax boobu noonu jur doom ju baax jile xelam dal waaye itam mu nekk en sécurité AGT News